buroj buroju bi demu fan. si douche bi. te eh, yow xanaa nga romb nitu si biiru kër nga ko ko na nga defu mooy nga romb rek nga génn nga ne mu si douche bi nga ne moo dugg si douche bi. yow xanaa njaago nga. Eh, yow nga laaj wala nga xamul yow nga laaj wala. waxul dëgg yow nga fen boobu. Eh, man fii laa nekk barki démb laa ñëw ci ay guddi. yow nga ñëw barki démb su guddi fii hmm. yow nga nekk jigéen nga woowu yow nga woowu yow nga woowu nga solo solo góor lii. Eh, nga romb góor wi si biir si mbedd yi nga yàqu seeni koor. Eh? yow xanaa xamoo ne koor moo tax ma jógee ko ñoom sëñ Mbàkke man woor nii laa def moom nii mu jaar nii ma jaar man du ma woor de. yow yow du woor. eh man su ma doon woor abbaay ah, laay muuru yor kurus bi jigéenu bii mu ñàkk jom de. njaago baax na. et eh, man bul waxu njaago. et eh, man ma tudd Émilie. Émilie waaw man mu tudd Ndeya. Ndeya hmm. eh. jigéenu bii yow nga xoolaatu sa bopp. waaw baax ma àq xoolal baax ma àq rek man man xoolal aw ma doole du ma du ma xeex baax ma àq. léegi yow nga bëgg a man mu amu doole. déedéet nga bëgg a man mu xuloo man mu xeex. amoo doole man man awma doole ñu nekk ay xarit. baalu na yow àpp. yal na yàlla boole baax di ngay togg ay mbaxal ak dëxin. man chaque jour mu togg mbaxalu am ku dëxinu. xaaral ma saw ñëw xaaral ma nga sotti su du.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 59 75. Notre site du si duus bi ndox ma ne chaque raxasu duus bi yéen ngeen dugg ngeen génn rek raxasu amulu dara ma dina dooru nitu ci biir kër gi ba mu dee mu raxasu duus ma ne mu gën a fonk duusu ak karam hmm. nga ko bu baaxul. ah waaw tëbali nga ah ah kay sama xarit bu lay nekk lu ma la yee. ah nga yeewu ma du nànk nga defu nii ma du nànk ma nga defu nii man ma yóbbu sama fitu bi. ban man amul problème <laughs> la paix de ma ne yow jàmm rek la séq eh, nga yeewu ma du nànk. ah bu ma nàmm la lu war a waxtaan. waaye nag moom lu ma naqari yow jaay naa ko man wóoruma yow itam. et eh, buuru et eh, yow mu rek la et eh, yow buuru yow chaque jour man bu taajee lekk si biir kër gi yow nga ñëw dugal sa gémmiñ nga lekk yow man yow da nga wow. ah waaw njaay mu tegu ndogo mu ndogo yow warul ndogo ndax yow wóoru do ah. sama wóoru yow lu njaay nekku si ah njaay xamul ne man maa ngi wóor xamul wóor ma yow kër gi yow yaa xam ne man wóor te ni nga dëkk ak man ngay sama nawle moo tax heure boo yekkee ma ñëw di la ñamal dama lay ñamal donc eh, loolu nga ñamalu kan ah, yow man nga ñamalu man wala yow nga ñamalu sa bopp yow ñamalul man de yow nga dugalu sa biiru man ma dugalu sama biiru yow nga góorgóorlu nga wooru nga nekk ko sa moromu ci biir kër gi ñoom ñu wooru yow nga wooru e ku togg man man sama koor ñëwagul de hmm. baax na dinaa jéem a woor waaw dama la ko ñaan rek saa yi mu wala dama ko rombale rek on met xarit bi di ma dugg ah. man amul problème mën na nekk. man amul ma xarit amul problème yaay sama xarit ma kaay bii ci ñëwaale dégg nga. daal hmm. def ko eh, suma nelaw bi yëpp hmm. njaay bu ñëwee fii moom mu génnee buuru kër gi wala man mu génn manu kër gi.